waaw di nuyu Peuzh waaw di hmm. ñëpp suñu mbër yëpp nag écarté wuñu kenn ah mag hmm. ndaw jigéen ñëpp nag quoi vraiment ah hmm. ak sa auditeur vraiment ah. yow moom da nga lépp loolu laal rek dañ koy dañ si laal quoi ah sa sama copain nag maa ngi dégg mi ngi lay mi ngi lay kii de mi ngi lay accéléré wallaay mi ngi may accéléré ko seetaan non mais mais nag normal xam nga maa ngi dégg tamit mi ngi laal sama beneen copain bi Xaadim ah. waaw xaadim xaadim non xaadim sama copain la non non sama copain man man nit ah. la ñu man yow kese comme nit de non man yow aw ma kese comme nit xaadim sama copain lu tax na ko sama copain mais yow dafa dalu xanaa la Lamine xaadim nekkul sama copain mais c'est un à moi waaw c'est un ami à moi waaw nekkul sama copain mais c'est un ami à moi mais combat bi kon su di nga xam ne combat bi su taxawee. non to combat bu taxawee liiru laay faral. waaw dëgg neexul. waaw mais xaadim suma nit la comme moom lu mu nekkee sama nit. waaw mais moom moom moo gën a jege si man. waaw léegi nag moom loolu daf koy fàtte quoi. comprendre mm-hmm. waaw nekkul ne moom kese laa am comme nit. comprendre nitu ñëpp la ah yaa ngi soog a ñëw nag. mais yow voilà wa est-ce que mu ngi la am koo si dugg ñoom ñaar ñoom seen seen ay action duma ma si dugg. lu naay si rek laa siy wax. waaw li si des nag moom cadre boobu du ma si dugg parce que xam nga rek ñoom ñaar moom bon coow li moo fi nekk rek mais kenn ku nekk jàmm nga yéene sa morom. dëgg mo mooy rek mais ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk jàmm nga yéene sa morom. combat Rebeus Sackier lu nice lay wax lay wax si si Xaadim vraiment. loolu am gisee. waaw mais soo bëggee dëgg-dëgg combat la parce que moment bi moment bi ñu toll nii rëg-rëg mi ngi si kaw malgré que si defet lu jóge mais mi ngi si kaw comme ni Sa nekkee si kaw bon te tamit. Bombardier vraiment il est intelligent parce que l'occasion ça se profite parce que moment bi mhm. xam na ne mi ngi dernier ligne droite xam nga d'ici boo amaatee beneen combat wala de defe naa ne bon en fait mi ngi terministe quoi bon mhm. moment moo tax muy muy profito bon en fait pour bu jëlul rek rek bon saa tees rek la mën a jël waaw wala mu gën a mhm. bon vaut kon mu profito jël rek rek waaw te rek rek moment bi mooy li ma la wax rek xam nga mi ngi xas na nekk si kaw ba pare rëg-rëg di Sa Thiès bon en fait ñoom ñi ngi si kaw kenn mënuti leen jëlee si kaw. parce que d'ici deux trois ou quatre ans ñi nekk si kaw ñëpp dañuy dañuy dañuy abale. bon en fait ñoom mm-hmm. ñooy nekk fondement yi ñoom ñooy nekk si kaw quoi vraiment waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. Sa Thiès Tapha Tine ndax làmb ju jaadu la. Hmm? Sa Thiès Tapha Sa Thiès moom soo bëggee dégg-dëgg moom moment bi moom li bu ñu doon wax tête de liste bon moment bi moom tête de liste la waaw parce que euh, Sa Thiès Tapha Tine combat la Sa Thiès Gris Bordeaux combat la en fait Sa Thiès Eumeu Sène combat la bon yooyu parce que Sa Thiès moom bi moom bon dootul neexalati kenn waaw Sa Thiès moment bi du neexal kenn waaw euh, hmm. gars neexal pour bëreeg moom mais moment bi tamit xam nga du du du neexal kenn quoi parce que fu mu toll sport dafa am nu muy tëddee. Ah. waaw dafa am nu muy tëddee. Hmm. comprendre am na niveau boo xam ne boo fa xasee toll bon jeex na amatuloo koy neexal bon moment bi hmm. moom mi ngi si kaw quoi. gars yi ñoo koy neexal pour bëreeg bon en fait moom amatul amatul amatul droit pour neexal kenn. waaw di si et di si deux deux ans peut-être que mën na ko bañ a mat sax parce que Boy Niang aussi mi ngi yore revanche am te kooku moom waaw revanche su xam nga kooku moom combat du siècle la xam nga revanche su Boy Niang moom kooku moom en fait xam naa ñëpp yàkkamti nañ ko ah. en fait ak làmb ji nu muy tëddee nii mais bien sûr il faut ñu revanche ñoom ñaar waaw mais làmb ji loolu la laaj sax parce que Lamine ñi nekk si kaw tamit boo bëggee dëg dëgg bon en fait comme li ñuy wax rek tamit quoi xam nga bon ñi nekk si kaw moom li ñuy gis seen combat dafa bëri trop trop trop trop comprendre nga te moment bi moom dañu soxla tamit lu bees quoi xam nga ay revanche su booy ñaa Sa kooku moom dañu dañ ko soxla trop trop trop trop mm-hmm. te bon en fait xam nga comme Reug Reug kii tamit vraiment xam nga ak boña xaw ma ndax ñoom ñaar nañ bëre wala déet mais comme loolu tamit combat la boo xam ne ñëw te kooku tamit bon vraiment ñu ngi koy xaar xam nga waaw combat du siècle yooyu la ñu soxla léegi moment bi nii quoi. Mhm. comme waaw combat du siècle yooyu la ñu soxla. mooy ana association bi. kookal. Euh, euh, mais mais peut-être que da nga siy génne sa bopp rek mais li ñuy def lu baax tamit dañ koy def si sutura. te bon en fait yéen ñaar yéenay ànd dem di ko yóbbu si sutura te dañ koy def rek te yàlla tax. Mm-hmm. def ñu ko du feeñal wala di ko wone ba si lu ñu mujjee def su ngeen ma woowee ne dañ koy wàññi sax dama bañ. comprendre dañ ko mu nekk naturel xam nga. Mm-hmm. waaw ba tax ne moom daal vraiment moom moom macha allah et puis loolu laa koy wax chaque jour bon loolu moo tax tamit ma tooñ ko quoi parce que il n'est pas méchant. waaw liiru mm-hmm. peut-être euh, bon baat bi dina jóg si ko mais ñëpp la yéen a jàmm. waaw koo wax mu ne sama nit la nit ku baax la loolu laa ko wax nee naa ko boo doon ñëw sama kër am lu bon looy tuddee nit ñi rek man dama lay ragal te man doxuma si loolu. Eh, moom xam ne man moom doxuma si loolu du ma wax jàmm du ma dugg lu sama ñëpp laa yéene jàmm nag. ñëpp mm-hmm. tout le monde tout ñëpp. waaw ñëpp mbër bu ma foral mbër bu ma foralul ñëpp laa yéene jàmm. Mm-hmm. waaw mais moom nag dama ko dama ko fonk parce que gis nga Amérique dafa rëy. waaw te su ñëwee day bàyyi ñëpp loo wax mu ne moo njaay directeur. waaw euh, vraiment mu nekk nit ku naturel na quoi vraiment xol bi dara nekku si. waaw euh, surtout yow tamit xam nga tamit yow moom Lamine yow moom exemplaire nga. moo tax bon en fait temps yi coow li bëri na mais sport mooy tuddee mooy tëddee noonu waaw sunu rakk sunu frère Modou Mbaye moom tamit c'est un exemplaire. dëgg neexul mais exemplaire la. waaw parce que bu amul fit. dafa am fit ñëw imposer boppam man jour bi ma ko gis li ma gis moom yow loolu laa gis yow dama ne mais booy bii dina dem parce que ku am fit la waaw parce que papaam peut-être que am na fu mu yóbbu làmb mais bi mu ñëwee moom yàqu ko waaw mais yow nag bi nga ñëwee da nga créé loo xam ne nii si historique waaw c'est historique. waaw Lutte TV moom yo Beuz di ngeen créé si làmb parce que làmb tamit am na benn moment boo xam ne nii presque deewoon na bon bi nga ñëwee. yow ak bës bon on pour pour pour, pour qu'on se dise la yéen a koy yëkkatiwaat waaw yenn a yëkkatiwaat làmb si benn méthode boo xam ne peut-être que xaw ma bàyyi ngeen si xel wala déet parce que tamit dem ngeen ba làmb nekkul si biir géew bi kese moom mooy làmb xam nga da di dem ba si biir këru mbër bi di waxtaan ak moom. Hmm. ah poser ay questions weeru koor sax bu bu bu bu bu nit ñi di off yéen a yéen ngi dem si kër mbër yi te loolu yëpp dafa bokk si làmb. dëgg waaw te yéen loolu da ko créé. waaw te àddina bi yëpp dañ si teg bët waaw mais lu amul compétition tamit neexul xam nga affaire bon compétition sax bu amul loolu mooy wane ne sport bi doxul yéen comme tey bu bu ngeen nekkee du ngeen compétir wala dara c'est-à-dire que liggéey kenn du si compétir waaw moo tax affaire bi il faut mu saf mais nag si diplomatie na set na set si li nga xam ne nii bon en fait day logique bu dara ñaaw xam nga bu bu saagante am bu waxantu lu ñaaw am mais nag comprendre xëccoo ay programme ak ay affaires yooyu fi lañ ko fekk te loolu mënul ñàkk àddina bi mooy tëdde noonu waaw mais nag mm-hmm. na lépp rafet rek xam nga na lépp rafet yow moom exemplaire nga te dañuy waxtaan te yow mm-hmm. dara du ñaaw lépp luy ñaaw du yow Lamine waaw booy Modou Mbaye aussi vraiment xam nga xamuma ko que xam naa ko si écran yi nii mais estimé naa ko trop parce que tamit mosuma ko gis mu wax ak nit ba saagu ko ndey wala dara vraiment je ne l'ai jamais vu waaw erreur nag mënul ah, mënul ñàkk quoi mais yéen ay nante ngeen te yéen ñaar yéen ay yéen ay avenir su jeunesse su ëllëg yéen ñay yéen ay avenir bi d'ici deux ans trois ans xool leen paa yi nekkoon si làmb yi ñëpp dañuy abale ñoom père Ngagne Ndiaye ñoom père Bécaye Mbaye ñoom ñëpp ñu neex ko nekk ay consultants yoo xam ne da ngeen di jël seen micro dem seen biir kër yi di leen poser question. mais avenir u lamb ji yéen la yéen moo tax yéen ñaar ak ñu mel ni yéen da ngeen di war di toog di waxtaan. comprendre nga dee leen toog di waxtaan di échange di échange comprendre nga waaw ay mm-hmm. booy yu am avenir tamit ñu ngi noonu surtout ton ami xam nga ton frère Babacar xam nga yéen yéenay mm-hmm. te yéenay téye affaire bi bon en mm-hmm. fait bu ngeen ko ñaawalee léegi nag ëllëg du rafet il faut ngeen sóoraale waaw moment moo tax léegi dafa war rafet dès comprendre nga xam ne ëllëg incha allah liggéey bi day set. incha allah encore euh, merci à tout le monde ah. ci yow. mais maa gën a bég si yow moo nekk. jaajëf ok waaw. liir da ngay lekk xanaa. non lekk affaire yaa ngi. lekkoo. maa ngi si laa jëm nii léegi su ma pare. Hmm. Hmm. Lamine. Hmm. Lamine. xamal la benn affaire Lamine comme li ma la wax léegi rek. ma ne. yaa ngi may dégg. waaw. jàmm sax Sénégal yàlla na saaw sax Géejawaay xale yi am combat Géejawaay yëpp yàlla na yàlla may ndam maa ngi nuyu ñu si bi ñëpp ñi nga xam ne dañuy bëggee liiru jaar. xale yi am xale yi am Fass xale yi am xale. fay passé fay passé am xale am combat pass man géejawaay laa dëkk de ñoom aada pass waaw ñoom Pape Ndoye waaw ñoom ñëpp yàlla na yàlla defal jàmm Pape Ndoye ma ne Pape Ndoye kooku dafa maa ndax Pape Ndoye géejawaay la dëkk pardon waa a la dëkk waaye présenté wul Guédiawaye représenté wul Guédiawaye Fass la dëkk. écurie <laughs> Fass la dëkk. Guédiawaye la dëkk waaye présenté. Lamine yaa ngi Bawal te représenté woo Bawal. Guédiawaye laa juddoo Pape Ndo juddoo wul Bawal Guédiawaye juddoo Bawal moom bu la amoon dañ lay sànni rek dañ lay delloo rek ñu ne demal amuñu ci yow soxla. wuyu ma euh, Pape Ndoye dafa maa yeb ndax naan ma jëlal Malick Niang kooku yabel la mi xale di bu ndaw. ah ñàkk fayda boo bëgg de nga xam ne ay rappel moo am a dese. waaw ma jëm a ah. jëli pa eh, jëlal Malick Niang ñàkk fayda boo bëgg de moom du jëli pa eh, lay Malick Niang moom su dee li muy wax dëgg la ci moom. du jëli Malick Niang wala mu fexe la jël eh, ragros ramage ci Coence ah nañ ñëfe loolu fexe jël ragros ramage ci Coence ah moo gën mu nekk fii di bul ma waxi kooku dox boobu fàtte naa ko sax kooku fàtte naa ko mi ngi dund mi ngi dund yàlla na ko yàlla <laughs> Lamine ah Lamine yàlla na nu yàlla dafa jàmm sama rakk yi am combat géejawaay yëpp yàlla yàlla may ndam ku ma tur sa tur géejawaay rek maa ngi jégul ci xale yi am combat. di nga ah. mën nga jaale sa copain Garga. waaw naa Zof gi naa ko Garga Mbossé man bu fa xoolal tey tey maa ngi ko bëgg woo sax tey. maa ngi koy jaale xam nga ne fekkuma soo fekkoon kenn du ma fa jiitu di ko jaale Zos tamit maa ngi koy jaale Garga Mbossé sama rak sama xarit maa ngi koy jaale bu baax a baax a baax a baax a baax a baax yal na ko yaayam dëddoo jàmm yal na ko yàlla xaaree àjjana yaayam jooju moog Zos maa ngi koy jaale bu baax a baax a baax a baax Garga xale bu yaru la xale bu baax la ba pare bëgg ma ndeysaan bëggal ma boppam boobu ba léegi maa ngi waaj pour woo ko waaye eh, eh, Zos moom wax dëgg yàlla moom mi ngi fi moom. déggante nañ téléphone wax dëgg yàlla mi ngi fi gisante wul waaye déggante nañ téléphone wax dëgg yàlla jaale ko vraiment di ko jaale ñëpp di jaale tamit sa euh, ki ma doon wax Papa Ndiaye Papa Ndiaye Papa Ndiaye coppe euh, Papa Ndiaye géwal ndaanaan bu mag boobu nekkoon senegal bu soxnaam moo wàññeeku démb waaw soxnaam moo wàññeeku démb démb waaye ñoo ngi ko koy jaale baax Papa Ndiaye na nag yàlla na ko yàlla may xolu muñ yàlla na ko yàlla mooy xolu ndax ku baax la ku oyof vraiment su ma nekkee fii dama koy tooñ di bëreeg moom kaf ak moom dreeg moom vraiment ta moom ak téeméer yoon maa ngi koy jaale bu baax a baax a baax di ko jaale ñoom Gambien Gambien doomu ndeyam maa ngi koy jaale Gambien maa ngi koy jaale baax a baax a baax doomu ndey papa jaale ku baax boo jóob maa ngi koy ziar bu wér boo ku baax sama waay maa ngi koy ziar di ko nuyu ak Rasil ak Boos ak Rama Rama ñoom ñëpp waa salon ba maa déggal waa restaurant ba ñoom boo jóg maa ngi leen di ziar bu wér waa restaurant ba a a at at kii nu mu tudd euh, jigéenu wàllu sekk ba jigéenu wàllu sekk bi tamit ànd ak ñoo euh, kii Xadi Lo sama jigéen boobu maa ngi koy ziar bu ku baax tamit doomu nday Sangara Mbaye Xadi Lo maa ngi koy ziar bu wér a wér di ko bégee bu baax a baax waa restaurant Chez Jacob maa ngi leen ziar bu wér di leen bégee bu baax a baax képp ku ma sa tur rek ci Amérique ma ngi jégu ndax Amérique gépp mu bëgg Lamine Lo. yow yow yow yow. waaw bëre woo. nekk sant ay diimu kër. yow la yàgg xam nga leen affaire xam nga lan moo waraloon Lamine. man nit ñi ma bëgg Lamine man nit ñi ma bëgg. te Lamine man bëgguma kenn mere ma. Lamine man mënu ma tudd ñëpp waaye nag li man man dama koy chuté tey diaspora bi ñëpp maa ngi leen war a tudd waaye mënu ma France Suisse Angleterre Allemagne. boo dem am naa fay soppe te ñu ngi fay su su ma sañoon ku nekk damay tudd sa tur waaye mënu ma ko. merci beaucoup. ok gis nga li ma la wax loolu noonu tey jii Amérique gii ma nekk fii tey booy yi nekk jóge Brésil booy yi ma fi bëree xar ñoom ñëpp ma bëgg ñëpp samay xar lan te ñëpp mënu ma leen tudd. tey am na ñoo xam société ay quelques tours rek gis nañ mën nañu gis seen bopp nuyu naa sama booy yi nekk Brésil yi booy yi nekk 116 ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. maa ngi leen di bëggee di bëgg ñoom ñoom Mafal ñoom Ablaye Sarr ñoom Bousso. Malaw Pikine ak Malaw Pikine. ah. Antoine na ak Malaw Pikine. Malaw Malaw Pikine waaw maa ngi koy ziar bu wér. kooku demoon kan ma ah? wax loolu. ah. ah kan ma wax ah. ah kan ma wax Xaadim Ndiaye mooy alamin wax ma loolu ka la. Boy Niang. saytaane la wuy ma Lamine yàlla na nu yàlla defal jàmm di nuyu sama waa ji baax Modou Dieye Sène maa ngi bu wér a wér ndax man ak moom démb la woon vraiment maa ngi koy ziar bu baax a a baax a baax a baax naa ko moom vraiment promoteur yëpp meloon ni moom waxatun ko ah su promoteur yëpp meloon eh, bi booy Mansour Mansour Ba doom père Ba vraiment vraiment ku baax nga xale bu yaru nekk ci yoon nee naa ko Mansour xoole ñiy ñëw ci yow ku nekk dina ñëw di nga gis ku nekk waaye xamal de fa ngay sa tànk ndax suqu promoteur yi dañuy reye dañuy got say tànk fu nekk la ñuy jaar yow de ku la laal laal ma maa ko wax maa tay. moom Mansour moom eh, Mansour moom Mansour Karim waaye yow dimbale nga Mansour Khadim Ndiaye nu mu nekk Mansour Khadim Ndiaye Mansour Mansour ñëpp la ndax moo fi def lu kenn musa def moo tëgg làmb par yónnee ñu ku nekk enveloppe. soo ko nekkoon bañ koo def. Mansour ñëpp la di ñaan suñu papa ja Gaston Mbengue yàlla na ko yàlla yëkkati yàlla na wér ak jàmm yàlla na ko yàlla yëkkati ndax fu làmb àgg tey liggéey na ci ay jéegu jéegu jéegu jéegu yàlla na ko yàlla yëkkati ba mu delluwaat ci njaboot di ñaan sa waa ji tamit ci bisam bi mu jëm. ah borom Kër Moussa promoteur bu mag. Ah. Ibrahima Diop. sama waa ji Ibrahima Diop maa ngi koy ziar bu baax di ko bëggee tëgg mu tëgg bis bu mag. ñu kan diggante Ama Balde borom caw sa xiir at kan xaara xaar moo ko xaara comprendre nga Ibrahima Diop dafa tëgg bis bu mag ñëpp di xaar bis bi muy kan diggante Ama Balde ak Gris Bordeaux retour de Ama nga xam ne gars yi dañoo nam mu Ama Balde borom caw sa xiir mu war a kan jàkkaarloo kan Gris Bordeaux avant boobu mu tëgg mbay guy gi ak armée combat bu neex waaw le vingt la le vingt ban biir ñëw mois bi la Lamine waaw soobee mois bi ñu nekk la waaw ok te dégg te jour boobu Gris Bordeaux di Ama Baldé tamit jour boobu si la Mama Lamine di at kii tamit nu mu tudd hmm. ah ak ak Gora Sock neex a neex a neex a neex Gora yoo a Lamine góor sa combat bu neex lamb jooju ko xam naa ku fi nekkee jiwul stade doo place di nuyu sama rakk jooju Youssou international maa ngi koy mag ba maa ngi bu wér a wér Youssou Ndoye sama rakk jooju maa ngi koy ziar di ziar ñoom Mansour Kassé ñëpp ñëpp xaaral ma jox la directeur nee ko bëgg a wax Lamine. ziar naa ñëpp bëggee ñëpp Lamine gis nga moomu yu rafet contact bi fan la fii voilà Lamine gis nga directeur gis nga gis nga yu garaaw gis nga lam xool yi nga gis ne directeur yii ci moom soo takkee ñaar eh damaa jiw. koy décoré man maa koy décoré moom moom ah këram xam nga ne këram man maa koy. Eh, maa ngi xam nga noonu du ma doo ma jël ba pare te du nuyu nag suma suma copain suma mbër. ah Balla Balla Gaye waaw Balla Gaye moom xam nga moom moo moom moo moo tax may seetaan sax làmb waaw moo tax ma bëgg làmb waaw Balla Gaye moom en fait ba ma la yóbbante si moom nag te direct laa koy wax waaw Balla combat mi mu am victoire yëpp fii New York Sport Club ñun ñoo ko entraîné noonu waaw te chaque jour man maa ko doon wax li nga bëree bii passé def si pourcentage temps a cette fois si nag xaw ma la mooy programme am mais bëgg naa mu ñëw fii aux États-Unis mu ñëw ñu entraîné comme d'habitude waaw di nuyu guy gi di nuyu këccëb di nuyu ñoom booy jar waaw ñoom Alioune Alioune Seyde. Alioune Seyde am na combat. Ah, waaw di nuyu ah, ah, di nuyu gars yëpp waaw di ko di de Guiers aussi le grand champion ñu ngi koy nuyu. loolu tamit vraiment combat la la kay. moom dina métti trop. la yàlla na leen yàlla defal jàmm. yàlla na leen yàlla defal jàmm si kàttanu yàlla. waaw ki ndam li na ko yàlla def. si kàttanu yàlla. waaw ah, parce que ñoom ñaar ñëpp frère lañu ah. ok vraiment encore une fois kontaan naa merci. jërëjëf kontaan si yow kontaan si Lirou Diane. Bakary dafa ndànk Aliou Seye am na waaw di ko ñaanal sama rakk jooju yàlla ko yàlla ngi koy defal jàmm la bëgg daal ngir yàlla rasulullah li may ñaan combat amat seen sino ne gédéway képp génn ñu jàppale ko ñu dooleel ko autorité nekk gédéway yëpp jàppale ko ku autorité bu ko jàppalewul nag jërëjëf. kontaan na ci yéen kontaan na ci yéen ñëpp